diggante appliqué ak Auguste appliqué moo takk bopp a bi ngay waay sifflé quatrième combat de la soirée Auguste moo ñu woon kanam appliqué moom daa si géew bi Auguste moom si géew bi a bi da moo ngi jox consigne ku nekk li nga war def maanaam li di règle li amul si bopp <laughs> tey lam tubaab nak combat anglais lu koy wax abri ngi waay sifle nee na piip aca ñu ngi si diggante appliqué ak ogis appliqué moo takk moo takk si bopp bi moo takk mor si bopp bi daa ji Auguste moo ñu wan kanam eh appliqué laaw na tibb na suuf digg ab bi na gaaw na gaaw nit amuñ temps na laamu gaaw appliqué ak Auguste booy xool ñoom ñaar dafa mel ni appliqué mu xaw ëpp tuuti waaye loolu lu dara si làmb Auguste ngi tibb suuf <laughs> ma ne lii dee suuf si moom jaaxal looloo jaaxal su siy tibb pour lan la eh ma dégg Leewtoo aywa da kur fañ naa si waay ndax bunti mën a am làmb ji mën gaaw a jeex. ñaari mbëre ngi lew too appliqué ak ogis ñamante leen ab waaw waaw waaw ah, bisibe la léegi fu mu toll nii rek dañoo buñ amee cinq minutes ab bi la sifflé ñu daal di bëri def temps additionnel 3 minutes. ab bi sifflé waat na ñaari mbër yaa ngi lay too si diggante appliqué ak Auguste appliqué da moo ngi tibb suuf si rek kon nu muy dee moom a jaaxal waaw eh tibb suuf nekkee tànk la doon wut juum baal leen ma tibb suuf tànk la doon wut ñoo ngi demante baaraam eh Auguste nga bëgg a jàpp Auguste nga a jàpp appliqué appliqué auguste appliqué arrière moytu génn saako yi wala génn saako yi moo ngi delluwaat ah eh, moo <laughs> laay appliqué à auguste ah bi lu tax mu sifflé waaw ah! lu war a sifflé bi ñoo ngi bëri avertissement pour la ah sama yoon nekk génn naas appliqué am na avertissement. Ah, appliqué appliqué jox na avertissement waaye man moom comprendre loo avertissement eh. na. xale ne ma laaj na sa ma ko sama abi dama koy wax eh eh mais dóor bi baaxul de li muy dóor baaxul eh appliqué Augustin moo ngi fayu ñoo ngi dóorante ñoo ngay raak waa dóor mu tànk la ñuy mujjee rokkas am appliqué jàppante bi la bëgg dëgg la Auguste bëggul loolu Auguste xeex bee nga arrangé appliqué jàppante bee nga arrangé abi plus suñu kanam fii épicure mën na fi am eh ku nekk nga jàpp sa ngemb moroom ci diggante appliqué ak Auguste bët na ko Auguste da ko bëgg bët Auguste da bëgg bët Auguste da bëgg bët ndax appliqué dina ko ko may bëgg bët est-ce dina ko ko nekk taxaw na di xalaat loo war a eh da koy plaqué baaxul ab piqué bëggoon na plaqué Auguste waaye baaxul ñoragul toggaat ko toggaat ko bàyyi ko muy baax bu la neexee nga tëmbal bu fekkee ceeb na ko ab piqué bëggoon na plaqué moom baaxul ba léegi ñoom ñaar ku nekk moo ngi toog waaye ñoragul ñu xool kuy njëkk a yàq bu dee kon ceebu jën la da ngay tëmbal jën xaw ma na bu nekkee dama daa noo koy def loolu ma jaaxal en tout cas ku ñaari mbër yi ku nekkee ngi téye ma raw eh eh mu ngi koy taf bëgg ko ñoom ñaar a ngi xalaat ku def sa morom dem nañ taxabal demul di jéem a plaqué demul mu jëm ko taf si dënn bi demul lan moo si topp cinq minutes jeex na cinq minutes jeex na ab bi ko waaw waaw règlement yi bees lii la waa eh jàpp na ko jàppante da koy suqi da koy suqi da koy suqi appliqué ngi suqi appliqué ngi suqi plaqué na ko plaqué day dem ah samputoo appui amul déedéet déedéet jeexul ay lii làmbat waaye baaxul appliqué ngi xalaat ku nekk ngi jàpp sama sa ngeemu moroom ku nekk ngi jàpp sa ngeemu moroom ci batterie ngi jóg waa appliqué ngi jóg ci pété augusi ñoo ngi jóg ab bi moom naa leen bëre leen jaxasoo leen ci pété dañoo sonn xaar lu fa am seen mairie kon yéen xaar appliqué gaaw leen Auguste gaaw leen da koy taf galgal na ko ay eh, daan na ko àgg na jeex na jeex na appliqué daan na Auguste waay mu ngay def ay waay lii la nii oh daan moo neex waaw waaw fair play nee na maa leen mën dëgg la mën ku mën sa morom duma daan nga ko daan nga ko Auguste appliqué na Auguste ba beneen yoon beneen combat cinquième combat de la soirée ci Wassare Lamb